jëf yéen ñi safoo seetaan Géejawaay info TV tey la samedi ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru mai ci ñu dikk ak yéen tàqat ñi leen lenn ci xibaar yi gënoon a fës ci ayu bés bi dañu kaa dooree ak mbiru Sayer Kebe di élève boobee dëkk ca Mbuur te yoon tegoon ko loxo gannaaw ba ñu ne nag fa doon kañ li nga xamante moo di terrorisme tey jile nag moo ngi ci ay guddi yu bët setagul ndax ay jafe-jafe yu métti ci waxtu woowee nag ñuy àddoo moom Sayer Kebe lekkatul naanatul ci ay nelaw la nekk foofee ca l'hôpital Fann loole nag la ko sabab moo di rek dafa manam rënku ko benn bërëb am daal njort ne dafa am luñ ko def mu mel ni ku tàggoog sagoom tax nak ñu rawale ko foofee ca l'hôpital fan ngir ñu saytu ko fi mu ne ni nag ay mbokkam yépp ci akub jaaxle tiit la ñu daal dee nekk ci guddi yi ndax jafe-jafe yi nga xamante ni seeni doom boobee di Sayer Kébé moo ngi koy dund ci jamono ji wàllum xibaar ba tey bi la yoon nag ci géejawaay ayu bés bi nag génn tiisoon na lool ca ñoom gannaaw musiba bi fi amoon ba papa jaxa bi amoon fukki at ak juróom ñett ñàkk ci ab mbir yu doy waar loolee nag la ko waraloon rek moo di benn raxaskatu di di jibi ndaw la pistolem ba mu bàyyi woon rek ci otoom la Alassane si jël yaakaaroon ne amul dara mu dal di koy dóor ci kaw papa jaxa bi mu ñàkk bakkanam si saa ba sax yoon defeere jibi ak Alassane si ci jamono ji ñoom ñëpp nag ñoo nga ca camp pénal mu nekk ab tiisu métti woo xamante ni dal na ci kaw njabootu jaxa bi yu fare ci géejuwaay quartier Thion Samb wax ci jamono ji wàllum góor jigéen ci ayu bés bi nag daanaka waxtaan wi yëpp loolee moo ko tënkoon mu nekk ab sujet boo xamante ni ñëpp ñu ngi siy àddu fële ca place de la nation ngir rek ñaawlu ko waaye nag daa mel ni ne coow li pënd bi wuréegul ndax yéen ci ay kuréelu góor jigéen nag ñoom nag ci foofee ca France la dànkaafoo yéen ci ay kilifa yu fare ci réew ma Sénégal dem sax ba ñu ne boo moyul daal seenub tànk dootul laal seen réew googee di France tey jile nag ñu bari gis ne wàllum góor jigéen moom tàmbale na am doole lool ci réew ma Sénégal ndax démb rek ca Rufisque itam épreuve ya ñu daal dee jox gone yi mbirum góor jigéen la doon àddoo loolee nag jur coow kilifa ŋànk njàng mekk njàngale mi ci biir réew mi ne nag faaw ñu càmbar mbir mboomee boo xam rek fan la soqe ko ci jamono jooje nag ñu bëri jàpp ne nag wàllum góor jigéen nag di jëf ju ñaaw jooje bu demee bu am doole ci réew mi loxol président de la république di Macky Sall moom seetul si ñu wax ci leneen wàllum avion bi tam doonoon na loo nga ni daal doonoon na waxtaan ci réew mi coow li ko wund moo di rek président de la république di Macky Sall moo daal di fàggo ab roplaan bu bees tàq ba ñu duppee A320 Neo mu jar lu ëpp ci juróom fukki millions ci suñuy koppar ak lu topp topp njëg li nag ni ki démb la ko Abdoulaye Daouda Diallo daal di fësal gannaaw werante bu baree bari bu ci juddoo mu nekk itam loo xamante ni ñu bëri jàppoon nañu nekkul farata si ci jamono ji nga xamante ni réewum Sénégal moo ngi dund ay jafe-jafe yu taratar ci waxtu woowee nag la président ne coqet naka lu ëpp juróom fukki milliards daal di jënd ab avion ngir ay wajaasam xibaar bi itam ku nekk ak na nga ko gisee ci jamono ji ci réew ma Sénégal mbirum mërs nag la ñuy àddu jëmale ndax tàmbale naa fës lool ci réewum Sénégal gannaaw duudu bu séeri Adja bi mballu si réseaux sociaux ci appel vidéo mu doon defal ak ak coroom ñu ne déedawaay naataangoom bii di ngóor itam daal di def lu ñu mel mu nekk lu nga xamante ni ci jamono ji nag bari na lool ci réewum Sénégal ba tax nag ñu bari di ko ñaalu waaye itam am si lool ak jaaxle ak tiindaange si ëllëgoo gone yi ci anam bi nga xamante ni daal noonu la jëfandikoo réseaux sociaux ci jamono ji ci réew ma Sénégal mu nekk mbir mu doy waar ñu jeexale ko ak tey jile nag di bës bi nga xamante ni maître Abdoulaye Wade di màggal juróom-ñeent fukki at ak juróomam Abdoulaye Wade ancien président de la République bu Sénégal nag réew mi tey jii di ko souhaité ci juróom ñeent fukk ak juróomi at yi nga xamante ni am na ko tey jilee tax nag ñu bëri di ko sargal ak delloo njukkal te itam ñu bari di fësal seenu po cofeel ci moom ndax jàpp nañu ne daal ci wàllum dooleel démocratie maître Abdoulaye Wade amul si woon moroom kon nag tey ji nag ñoo ngi koy souhaiter joyeux anniversaire moom ki fi nekkoon président de la république ci diiru fukki at ak ñaar ci réewum Sénégal tey ji di màggalu toll ak juróom-ñeent fukk ak juróomu atam mbokk téléspectateurs yu géej Guédiawaye Info TV ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax ci qualité bi ngeen am ak ñun ñu leen di dig daje beneen ayub pues hay en el ojibar,